fidèles internautes Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat mbétti a kontaan comme ni ñu ko faral di ko defee saa su nekk tey nag dañoo dalal ndaanaan foog naa ne ndaanaan ba nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci mim réew àdduna bi ñëpp a ko xam à travers TikTok à travers euh, Facebook TikTok euh, YouTube suñu maman ñi nga xamante ne maman bu baax la tey nag ñu dalal ko fii ñu ñu ñëw seet si ko fas yéene wax ak moom ci sekk ak ci ay waxtaan maman ñu ngi lay nuyu. di leen fay di leen jox seen wàccuwaay. di la wax ne kontaan naa ci sa sa teewaay yow sama toomaa nga uh-huh. eh, di la jox sa wàccuwaay bu baax dina ñaanal nag sa liggéey bi yàlla na ci yàlla def uh-huh. eh, jàmm yàlla defal la ci yokkute ba nga yëg ko ci daraja yeneen bi di nuyu nag àddina wëngal képp macha allah maa ngi leen di jox loxo di nuyu nag sama doom yi nekk ci diaspora leen jox loxo di doon soxna Awa di nuyu bu baax a baax di nuyu nag kilifa diine ak kilifa aada macha allah di sàkku ci ñoom ñaan eh, di ñaan ñu ñaan ndax julit moom ñaan rek mooy mooy mooy gàllaajam uh-huh. macha allah di ñaanal ci bi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi na yàlla teg leen natt ñi nga xam ne dañ leen caabi da leen féete ginnaaw yal na yàlla teggu leen natt bi ci daraja Seydina Mohamed di ñaanal nag euh, rawatina nag suñu dëkk bi di Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm yàgg macha allah suñu maam yi baax yi suñu wàllu yu baax yi dañ fee def ay ñaan yu baax mm-hmm. kon nag yàlla na fi jàmm yàgg lool lool lool lool lool macha allah dinañ kontaan na sa teewaay sama tooma <laughs> maman euh, tey foog naa ne ku dégg ma Awa rek sa mhm. xel dem ci seet mhm. maa mën nga ñoo expliquer seet bi nan la dikkee ak seet bi nan lay demee ak mhm. réew mi yi nga xamante ne réew mi dafa jaxasoo koo wax ñu naan ay foo seet kat dafa ay yooyu nan lay dikkee nan ngay dundee loolu waaw lu baax lu ne loo gis rek lu bon am na cap yoon ndax sans lu baax sans lu bon lu baax mënta am valeur moo tax foo mari rendoo yi foo ñu nekk ci waaw ñu nag xayma duñu kenn liggéeyam waaye ñi ngi sant yàlla nag ci ñu lu a jox ba nga xam ne bu ci doomi aadama yi ñëwee ah waxtaan ceeg yow ñoo ñu dis soog yow gis seen satisfaction am ci satisfaction maanaam seen xol mën caa sedd du dëgg waaye nag àddina ku ne xam nga ne yaa des hauts et des bas waaw saa lu baax lu lu lu lu bon mënta am maanaam du ñu mën a ràññee lu bon saa lu bon du ñu a ràññee li nga xam ne mooy valeur lu baax lool moom foog mu am ci àddina macha allah. tubaarkalla macha allah man dama xëy rek di seet macha allah may suñu borom nag may seexu yàlla. waaw man nag seex laa te nag seet seet bi may seet nag dama ko doon ci samay maam comme ni ma ko daan waxee démb ak bëkk démb sama yaay boromi tuur la woon tubaarkaala daan yëngu nag ci nga xam ne mooy sunguf ak reen sama sama sama sama wàllu baay moom tubaarkaala ñun ay shérif lañu kon la man suma seetee war na maa seet mhm. waaw maman ñu gis ne say boo defee sorti euh, duñ duñ dégg ne moom a chaque jour li ngay wax day am maanaam doo wax loo xamante ne nit ñi dañ day tax mi ñi di la yóbbu baax loolu noonu nan lan moo tax ah loolu yàlla yàlla suñu borom lañ koy sante bu baax a baax sant yàlla rek ndax nga wax yàlla barkeel la ngay wax loolu sant yàlla la te booy wax te dëggu ci la ngay wax it tubaarkàlla macha allah man na waruñu laa mën a yóbbu faar nag ndax xam naa la may wax man soxna Awa Fall lu ma xamut du ma ko wax man ki dëgg rek laa yow yoonu saratal mu saxee ñu gis noonu ci loolu lay ñëw daaw ñu daawati jéeg ci coupe d'Afrique bi ñu gis ne presque ñi génnul ñëpp dañ leen yóbbu vaar mm-hmm. yow kese yaa sañ a génn Sénégal ngay indi ndam li waaw te noonu la demee sant yàlla rek mooy li ma la wax rek ba tey dañu delluwaat di santaat yàlla ndax ku sant nit nit nit na maman lan lañ mën a xaar ak yow mën nga nan nga mën a tempo tempo rek lañ koy def tubaarkàlla ma allah dañ koy commencé ci bisimilah rahmaani rahim mm-hmm. fas yéene ko jeexal alhamdulilahi rabil alamin Coupe d'Afrique bi tubaarkàlla macha allah yàlla danañ ci def ak jàmm te dinañ fa yegg nag fu sore comme dañuy doog a door dañuy cofaat ndànk comme ni ma la ko waxee woon mais dinañu dinañu dégg fu fu sore sore ci kàttanu yàlla ak baaxam yàgg yàgg naa toog di wax ñeen woowaat ma man leen nii lay demee nii lay demee waaye comme dañuy doog a door te ku ne xam nga ne cat dafa dafa gaaw te bëgg a nag catu sama doom yi damaa bëgg ñu dem à l'avant léegi nag dama bëgg ngeen diglu ma attentivement dama ne ci kàttanu yàlla ak baaxam xale yii ma gis ñii ma gis sunu joueur yi ñu gis ci kàttanu yàlla ak baaxam danañ yegg ñun fu sore sori jome nga ci ñoom fulaa ngi ci ñoom te Sénégal rek moo leen moo leen ñor danoo bëgg seen réew moo tax ma ne danañ yegg fu sore sore comme dañuy door a door. kon maanaam mën nga dalal suñu xel ne Sénégal bu baax a baax. dina sori ci coupe bi danañ sori ci coupe bi danañ sori ci amin ah, amin waaye yal na sa jëm na am barke mais dañ koy sori ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. mais ba léegi waxagoo dañuy indi coupe bi de maman. dañuy am coupe bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mais dama ne cat baaxul de gooma de dafa am fu ma wax ak yow waxi mag laa wax ak yow cat baaxul te sama xale yi ma gis gis nga nit danga ko daan jàkk xam fi mu war a fi mu war a dem ak yow da naan daan jàkk nit ki xam ne kii war naa mën a soreeg man wala du soreeg man waaye sama xale yi ma gis sunu joueurs yi ma gis tubaarikàlla macha allah jom dafa nekk ci ñoom mhm. fula dafa nekk ci ñoom ñuy ay xale yu am jom yóbbu woon nag Sénégal foo xam ne mosu ñu kenn mosu faa yóbbu Sénégal mhm. ku ne keroog ku ku gis keroog coupe bi gis Sénégal nañu génnee ku xula woon nag sam morom juboo nga ak moom ko mere woon keroog sa mer giif na keroog ku ko ku xiifoon jox nañ la nga lekk dëkk bi nekk benn affaire bi neex macha allah ñu ñëw na xale yi def nag maas bu rëy a rëy rëy muy mag xale kenn desul ñëpp génn teeru suñu suñu sunu suñu joueur yi mais loolu da leen renforcer loolu da leen di yokk jom sunu jàmbaar yi dañuy gën a am dañuy gën a am dañuy gën a gën a gën a gën a forcer la ñu defoon daaw lu ko raw danañu ko wan ci ci ci ci ren ji daraja yeneen ci en tout cas dalal xel xel war naa mën a dal ci li may wax xel war naa mën a dal ah, ku nu war a ñëkk a ñëkk a dajal gambi ci kàttanu yàlla mbaa xam ñoo jël ñoo jël ñooy jël ndam li ah loolu maa ko may maman dalal nga suñu ci kàttanu yàlla mbaa xam incha allahu rabbi en tout cas Awa dégg wax nee Sénégal dina sori ci coupe bi mais comme mhm. cat baaxul bàyyi mu yemagum foofu doon ba ci mhm. kanam ak kanam ak kanam mhm. bu demee ba si biir kan bi ah. peut-être dinañ ñëwaat ah, jëlaat ko mu wax ñu coupe bi fan la nar a mujjee daal <laughs> noonu nañ koy def yàlla ak baaxam euh, politique bi te bientôt élection day jot lan nga ñu mën a wax ak yan sarax lañ mën a génne pour dëkk bi mën a dal sant yàlla dëkk bi day dal ndax dëkk bi borom réew bi jot na ci dëkk ba pare li waroon a yëngu yëpp yëngu boo seetee bu dee nit nga bàyyi xel ci réew mi man nag <laughs> borom bopp yi laay waxal de <laughs> waxuma ak borom bopp yi vide yi. waaw déedéet ku xool réew mi ni mu demee. Mhm. ak réew mi ni mu waroon a demee. te demewoo ko réew mi tekk lay def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. élection yi danañ ko def ci jàmm ak salaam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam leen rek laay wax mhm. képp koo xam ne njaboot nga. Mhm. na nga téye sa njaboot. ndax xale yi xale yi ndaw yu tuuti dinañ ci loru lu baree bare. foofu daal mooy problème bi. tout tànk yi yi ku yor sa doom daal na nga gën a veillé ci sa doom. nga gën a téye ci sa doom. bu baax a baax veillé leen ci xale yi te téye seen njaboot ji c'est très important loolu maa ngi koy wax ñi nga xam ne mooy jaay yi ak baay yi ndax ñëpp ñoo bokk jaboote waaw loolu daal laa ci gis lu xaw a lu xaw di euh, métti tuuti daal ci nja xale yi. nga ci dégg lu ne. ay xale yu réer te bu nu feeñee feeñeen bi dina doy waar. nañu téyewaat daal xale yi nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax ñu téye seen njaboot ci man daal soxna Awa Fall loolu laa leen digal waaye pour xiiroog ngaayoo ci ci ci ci élection yi non dañ koy dañ koy dañ koy dóor ci jàmm ak salaam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam li mën a wax borom réew mi téye réew mi te jógagul ci réew mi mm. am na lu mu def ci réew mi barke Seexul Xadim réew maa ngi ne tekk bal tàkkul ma aw waxati na de waaw réew maa ngi ne tekk di ko ne tekk danga xam lan la mm. <laughs> Mm. mbir la moo tax ma ne la mm. danañ ko élection ba mu neex ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mais lépp ci jàmm lay doon waaye nag nañu téye xale yi problème bi foofu la. xale yi waaw nañu téye xale yi nañ gën a bàyyi xel surtout ñu nekk ci banlieue bi nañ gën a bàyyi xel ak ñu ci àll bi nañ gën a bàyyi xel seen doom yi nañ ci gën a bàyyi xel te téye xale yi nañu téye seen doom yi. ku ci jàngi ku ci mën a xool sa doom buy jàngi bu jaree nga bàyyi heure bu waree wàcc dawal dem ci buntu école ba jël sa doom ñëw indi. man daal loolu laay am conseil boo xam ne dama koy jox euh, njaboot gi mm-hmm. ñu gën a bàyyi xel ci seen doom yi macha allah foofu daal laa gis daal dina fa am tuuti lu xaw a yëngu tuuti te ci xale yi lay doon te commencé na sax yal na fi yem daraja yeneen bi maman mm-hmm. sànq naa la nga ne euh, borom réew mi defar na réew mi kan la ah, koy téye ci loxo suñu borom la nekk loolu duma ci wax ndax yegg seeguñ ca waaye dama ne rek ki téye réew mi actuellement nii ah, waaw kay borom réew mi téye réew mi te jógegul ci réew mi ama lu mu def ci réew mi réew mi a ngeen teg coow du jib bal du tàkk ne waa gën a woon yuusu woyul waa di sekk tëgul waaw lii daal laa dégg maanaam daal ki jógagul ci réew mi kooku daam lu mu def ci ah waaw waaw nekkagul ki nga xamante ne moom moo war a toog non non kooku toogul toogul loolu loolu bi ci defa na kooku toogul Omar tey ñu gis ne euh, benn polémique am na ci réew mi muy Sadio Mané bi nga xamante ne dafa gis nga CM bi nga xamante dafa yëngu ci réew mi. Mm-hmm. mu bàyyi xale yi nga xamante ñoo nekk si TikTok xale yi si wii dem takk xale boo xamante ne kenn mosu koo xam kesum kenn mosu koo dégg. Mm-hmm. ñu génn nag ñu bëri génn def sortie di xas jigéen ñi en tant que euh, jigéen yow lan ngay wax ci loolu. waaw ñi génn di wax dañoo gàtt xel rek di wax. Mm-hmm. ndax génn ci TikTok mbaa nga génn ci réseaux sociaux taxul nga bon. nit mën naa muuru yiw lool ñu ne ah kii ak yow te bu génnee tëj réew mi loolu am na ndax nit dafa lëndëm yàlla mi bindi doomi aadama ba tuddee ko nit moo ko xam dégg ko suñ borom bi moom mi bind doomi aadama moom rek moo la wax moo la mën a wax doomi aadama bi mooy kat nit dafa lëndëm xanaa xamal ki tegu yeneen yi naa fekki daan nañu ànd ak yeneen bi lu ñu wax ci lislaam ñoo njëkk a génne seen alal ñoo njëkk teg taxaw ci kanam te ay naa fekk lu ñu gëmuñu yeneen bi kenn da cee mujj fa da cee da cee génn àddina yéen ti bëggoon bëggoon koo jullee yàlla yóbbu yónni bi jibril ne ko bu mu ko junne ko ab naafiq la kon donc yooyu yàlla dafay jàngale wane ne nit dafa lëndëm mm-hmm. nit dafa lëndëm ça ne veut pas dire xale bi nekkul ci tiktok rek ñu nekk ci tiktok dañoo bon déedéet loolu ku gàtt xel moo koy wax nekku ci réseaux sociaux rek nangam nangam rek non non non yaru na c'est bien boo xale bu yarul xale bu dal la mm-hmm. te xale bi mm-hmm. xale la dañ koy ñaanal sëyam bi yàlla na ci yàlla def barke te ku ne xam nga ne Sadio Mané aussi nit ku dal la suñu joueur boobu tubaarkalla nit ku dal noonu la mu semel te eh, te te wane na nag lu wane na lu doy waar waaw wane na nag que ne nit mën ngaa may sa jabar te doo ko wane di ko fësal waaw wane na ko aussi wane na discrétion boobu wane na ko maanaam sutura dafa baax na dafa bëri àdduna dafa dafa doy waar ba nga xam ne looy def da nga ko def ci sutura def na léppam ci sutura mais ça mama dégg na demul TikTok ko ki wax loolu yàlla xam na ne sax waa kër ñoom Sadio Mané kenn ko ko moom ma wax waxu boppam rek sànni ko voilà mais nekk ci réseaux sociaux wala nga nekk ci TikTok taxut a bon taxut a bon. boo amoon conseil bi ngay jox jigéen ñi ñi nga xamante ni ñu ngi toog di wax di dégg wax yi affaire yi di leen metti yow lan nga leen bu mu leen metti ku bon xam nga maanaam ku wér xam sa bopp. Mhm. nit ku ne xam nga yow yaay kan. Mhm. soo bonee xam nga soo baaxee xam nga. Mhm. boo soxoree xam nga boo xee boo dee sa xol dafa set xam nga. fii ki amul naxante ku ne xam nga da nga mel. ku nekk xam nga ni nga mel dari dari yow rek mënoo koo dindi mais ku nekk xam nga ni nga mel jeex na loolu joru mu leen di métti nit ci TikTok bi taxul nga bon am na nekk nekk ci TikTok yoo xam ne jaay moo leen fa teg waaw dañuy jaay di liggéey seen liggéey man gis naa ci koo xam ne dem naa ba këram ci ci ci ci magasin xaw ma woon ne foofu moo doon magasin te jaar naa fa dugg fa jan jënd fa parfum mm-hmm. fekk leen ñoom ñuy ñuy ñuy ñuy live mm-hmm. kon ñooñu lu bon taxul leen dugg ci TikTok bi mm-hmm. dañuy jaay du dëgg jaay seen jaay ñeneen ñi am na ci yeneen lu ñuy yëngu mm-hmm. dugg ci tiktok bi di ko fa yëngal donc ndooru taxul nit bon nit dugg na ci tiktok def ci lu ko neex mbaa mu saaga cay ndey waaye nit dugg na ci tiktok def ci lu baax wax ci lu baax ba mu amal ko njëriñ kon loolu taxul nit bon du dëgg loolu bu mu tax benn xale am ci lu koy metti xappi leen lekk leen ba suur naan leen ba màndi xale yi Sadio Mané bi kala jigéen la kenn dundu jigéen ndax sunu jabaroo joueur la. Hmm. amul leen luñ ci war a teg waaye kala macha allah yéen da ngeen am jom yen waa xale yi TikTok yi. am ngeen jom am ngeen ful am ngeen fayda ñiy génn ci réseaux sociaux yi taxul nit bon dégg nga nit mën naa toog génn réseaux sociaux deful lu bon euh, génnu ci ben benn benn benn média waaye fekk mi ngi toj réew mi. moo ko xam nit mu ko gis muy taxawaalu ci mbedd mi tël tëli kenn ki toog ci biir néegu yaayam ñu naan ah la dem génnu ci peggu ndeyam. wallaay fekk xale bee nekk ci biti di tëri tëri moom la yàlla gën a fonk kii ne ci biir kër gi mën a gis nga addina dafa doy waar te nit dafa lëndëm nañu bàyyi gaaw a jugé aadama ak gaaw a xaste Sénégalais loolu rek ko yàq ña saa yi maanaam dañ koy ñaanal sëyam bi yal na ci yàlla def barke ba mu am ci njaboot ju barkeel en tout cas xale bi yaru na te euh, jëkkëram it yaru na jëkkëram nag nii rek la mën a am ndax ku ne xam nga ne Sadio Mané moom nit nit nit nitu nitu kii la moom wax dëgg yàlla. waaw nit la koo xam ne daal daal daal wuti nag ñu bari am na yar daal. du ne ci moom bariwul ci jour yi mu ne ak ñi ma ko sañ ñëw ci seet bi. Mhm. ñu gis ne bëri koo laaj maman ñu ne la lu mu seet dafa am maanaam lu mu la wax ci seet jàpp ko téere. waaw mais parce que may suñu borom la lu ma ko bàkkoo de dama am samay wax ji dafa mës a génn ci yoonu saratal masaxi mm. déedéet. may suñu borom la yàlla bu la may danga naan alhamdulilah ngay setal doomi aadama muy kontaan nga xoolal keneen mu kontaan xolam sedd loolu yàlla suñu borom la ñanuy ñaan yàlla gën ñu ko fulal gën ñu ko barkeleel dañuy ñaan yàlla su may commencé bisimilahi laay wax su ma paree ne alhamdulilahi rabil alamin kon dañuy sant yàlla bu baax ay jurit lañu du ñuy yëfër des fois ñu toog nga ñu ne ñu ne seet dafa araam mm-hmm. dañ koy wax pourtant di ko réyal non non ak xëy na ñu ñu koy ak ak nañ koy doxalee ma ne soxna Awa Fall ku ñëw ci man danaa defal mm-hmm. yëgu ma fitu doomu aadama yi déedéet génnaloo ma kenn nagu ñuul mm-hmm. <laughs> dama ne génnaloo ma kenn nagu ñuul ndax nagu ñuul boo ko génnelee nit dafa am na ku soo xamul ne ku koy génnelee nga um ko ba faw léppam yàqu ginaar gu ñuul du ñëpp lañ koy génneel boo ko génnelee yàlla mën naa def ay mbiram yàqu ba faw kon nag nit boo koy jox seet di ko seetaat dafa am sarax yoo xam ne moom lay moom ku nekk ak bi nga moom boo ma joxe say sarax boo ko dóoree rek ñetti fan nga xam sarax bi am na lu ma jëriñ wala amul lu ma jëriñ teg ma xamal la dara sama doom nit mënu laa ñaanal te joxu la sarax. kon sarax mooy buntu bi. looloo tax seet lu am solo. Mhm. am na ñoo xam dañu xool ci pétaaw man damay xool ci pétaaw waaye damay xool ci parfum. loolu yàlla may na ma ko su ma génne woon parfum léegi lu ma la ci yëngalal du dem. lu ma a ci yëngalal nga gis ko parce que Seexul Xadim bañ naa ko ba su may dem parfum day dugg sama saak pata day dugg sama saak ndax man seet fu ne lañ may woo di ma di ma seetloo man fu ne lañ may wooyee di ma seetloo. Euh, maman ñu gis ne euh, TikTok bi léegi maanaam moyen de communication laa ko mën a tuddee sëriñ ku jóg ne dafay seet ku jóg ne dafay seet ba nit ñi sax koo wax di seet TikTok ñu lay naan ba nekkul TikTok bu ñu la nee seetkat bi mu ngi tukk ñu ne ah kooku mënul dara. leneen dina lëkkatu kese la naxul béy de ngay teg seen laga ne ay seetkat la ñu bari nañ waaye xale yi dafatuñ de sama gars yi dafatuñ de xam nañ fi fi fi fi fi mburu mi du xoyom xoyom ah, ñoom xam nañ ko xale yi dañoo daw ko du ko lay demee nii ñëpp a muus xale yi mujjee juddu ñoo gën a muus mën nañ lay mën nañ laa jaay léegi sa njëg te doo ko yëg te doo ko yëg da ngay xëy rek ñu ñoo forcé dana la kaay yow jant bu yàgg te doo ko yëg léegi buñ ku ku bëggoon nu mu tudd a Awa Seetal la ku la bëggoon jot ban numéro la. ku ma bëggoon jot ku ma bëggoon jot rek da nga def 77. 521 84 21 boo ko boo ci wootee jot soxna Awa Fall. Mhm. wala nga def 77 918 918 ay waay doom. <laughs> numéro bi dana dem na 918 10 77. boo ko defee ci kàttanu yàlla ak nga xam di nga jot sa yaay la fi soxna Awa Fall. bu la boobu réeré rek nga daal def cinq cent vingt et un bi quatre-vingt-quatre vingt et un su ko su ko defee ma xam ne seetal la incha allah rabbi euh, maman c'était un plaisir tamit mhm. dalal ñu seet si la fii dalal la mhm. en tout cas ñu ngi kontaan ban message ngay jox euh, jeunesse bi nga xamante ne ñu gën dal mhm. ñu gën a dal am yar ami teggin gën a gën a gën a gën a bàyyi xel seen bopp xam ne xale day doon xale mais ëllëg mooy doon yu mag te ñun dañ leen a soxla ndax bu ëllëgee ñoo ñu fiy toogal ana suñu yaay ak suñu maam fi nekkoon. Mm. parce que am na génération bu bëri dem nañu. yeneen génération ñëwaat. ñooy mm-hmm. génération day dem. yeneen génération àdduna àdduna mu ngi bëgg a yàgg a ay jamono yi la jot da leen fi gisati. Mm-hmm. Hmm? ah ñu fekkee woon jamono yi Serigne Touba sax ñu bari gisatoo leen. Mm-hmm. ñu bëri dem nañu. donc loolu lay dem étape par étape la étape par génération bi après ñii ñooy ñëw après ñii ñooy ñëw mu war a àdduna ñu gën a góorgóorlu te xam ne xale mooy doonuy mag ëllëg mm-hmm. eh, te te dañ leen a soxla ñun dañ leen a soxla mm-hmm. parce que xale mooy dundal réew xale mooy dundal réew ñu gën a góorgóorlu gën a bàyyi fitna aussi mm-hmm. ñu bàyyi fitna bàyyi yàqante beeg euh, euh, xotti warma yi am na solo te xale yi dañoo bëgg di xotti ay warma di waxante lu bon te loolu baaxul ñu day am sutura ndax ku suturaal yàlla suturaal la sama doom koo suturaal yàlla suturaal la xale nañ bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax am na solo lool lool du loo xam rek wax ko du loo dégg rek teem ma tontu ko. boo ah, ko defee rek loolu moo xew ah, Sénégal ah ah moo tax nag moo tax loo ci gis loo ci gis loo ci gis baaxul baaxul yaa booy nañ ko bàyyi. ku suturaal nit yàlla suturaal la ku fa warmaal nit yàlla warmaal la. nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax santaat yàlla bu baax di kontaan nag ci seen teewaay macha allah di leen ñaanal yàlla seen sit bi yal na jëm kanam macha allah yal na yàlla jëmale kanam yàlla bi nga xam ne ku ma puus nga tàkk yàlla na leen yàlla puusal boppam ah kontaan naa de kontaan naa loolu. macha allah waaw di kontaan ci ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. di kontaan ci ñi nga xam ne nag ah ñoom tamit macha allah ñi nekk ci hôpitaux yi comme ni ma koy waxee. ah yal na yàlla fëttali seen bopp yi. ku ne xam nga ne feebar tubaarkàlla mooy noonu. Mm. yal na yàlla teggi leen ko yal na yàlla teggi leen nattu yëpp ci jërëjëf seen naam asalaamaaleykum wa rahmatullah. en tout cas c'était un plaisir euh, dalal fi maman Awa mu nekk la voyante. mais nag wax na am na lu mu wax ci coupe bi mais nee na nañ bàyyi ba si kanam nee na daal Sénégal dina sori ci kanam mais ci kanam dinañ ñëwaat jësi ko incha allah bu ba ci biir bi dinañ ñëwaat jëlaat ko ba xam na coupe bi na lay dem nii lay demee saa su nekk ñu mu leen jox dig daje beneen numéro ak keneen merci